Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatuhu mbokk yi yene ngi ànd ak seen mbokku Khalilou Ba si MMD Media TV ñu ngi leen di ñaan ngeen continuer di abonner ak di like ak di partager sunu vidéo yi nga xamanteni euh ñu ngi koy def ngir gëna jëmele sunu liggéey kanam si ñepp mën si jot ñu ngi leen di nuyu di leen ziarra di leen balu ak bu baax baax di am mbekté comme niñ koy défé sa su nek su amee ay événement yoo xamante ni dafa xew ci sunu réew ñu ñëw ñu partager ko ensemble ñu waxtaanee ko pour jéem a xam bu baax li nga xamante ni moom moo xew parce que itam média moo toll foofu mais technologie itam moom moo toll foofu te itam wala xad wasalna lahumul qawl laallahum yatadakkaruun comme niñ koy faral di waxee ah ci wàllu actualité ñu gis ni euh, son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, def na visite bu am solo fole ci réewu tugal gannaaw ba mu demee seq ko ak yeneen président yi nga xamante ne daje woon nañ fa pour jéem a xool naka la ñuy fexee ba Afrique am li nga xamante ni moom mooy souveraineté ci wàllu vaccination ba gis ngeen sax ci discours bu am solo bi nga xamante ni def na ko mu wax ni vraiment ci Covid bi Euh, Afrique nekkoon na continent bu vulnérable rawatina sunu réew waaye itam li nga xamante ni moom mooy Institut Pasteur taxawaay bi nga xamante ni waroon na ko si def itam def na ko si ba vaccin yi nga xamante ni yëpp moo waroon am ci Covid bi Sénégal taxaw na ci ni nga xamante ni noonu la ci waroon taxawee waaye itam ci biir euh, euh, tukki boobu nga xamante ni son excellence la président Bassirou Diomaye fay def na ko gis nañu taxawaay bi nga xamante ni am na ko si. ci kanamu ki nga xamanteni mom moy président de la république bu France muy Emmanuel Macron gën na rehausser vraiment le type de sénégalais bi nga xamanteni mom lañuy woté ñuy gën na itam rehausser le type de euh, africain bi nga xamanteni mom lañuy woté pour que sunu taxaway wax deug yàlla ci Afrique gëna a yaatu waaye gën am solo waye itam ñu wané ni vraiment nous ne sommes plus complexés devant euh, les blancs. wax dëgg yàlla type de sénégalais wala type d'africain décomplexé boobu fésal na ko ci rencontre bi nga xamante ni def na ko ci bitim réew mu nekkoon lu am am solo beneen bi ci isam mooy euh, sénégalais bu nekk ak sénégalaise bu nekk am nga fierté ci président de la république déplacement bi nga xamante ni effectué na ko fële ci réewu tugal fierté bi nag ci ñaar ba ñetti fànn ba bi si njëkk moom mooy euh, tenue traditionnel bi nga xamante ni moom le président de la république demee foofu te loolu da ngay jaay li nga sol muy sunu ay tenue traditionnelle lu am solo la nos et culturelles gis son excellence à travers son sourire reetaan ju neex ji à travers le calme dal gi nga xamanteni mom mo nek ci mom mais aussi à travers la sérénité bi nga xamanteni ni ngi koy nemmeeku vraiment ci le président de la république benen bi ci gëna am solo nak moy le discours éloquent bi nga xamanteni président def nak bu taxawé di wax da ngay xamni ki c'est un président de la république euh, responsable digne fier wax dëgg yàlla euh, représenter Sénégal am taxawaay gi nga xamanteni ni mom la mom la mom la ci wara a am deug deug deug deug kon ni voyage son excellence le président de la république fële ci rewou tougal euh, nekkon na loo nous, lu am solo la lo xamanteni wax deug c'est à saluer donc euh, président nous sommes fiers de vous et nous vous accompagnons euh, pour votre lourde mission Et ñi ngi wax ni vraiment ñi ngi sa bu baax baax Euh, fi nga xamante ni fa la ñu bëgg nag vraiment accentuer tey suñu waxtaan moom mooy réalisation yi nga xamante ni nguur gi commencé na ko def te itam matagul trois mois wala calay lay toll parce que du ñu la denkee réew en mois de trois mois wala en trois mois sax buñ ko mënee woowee noonu nga am ay réalisation yoo si def kooku dana jaadu ñu fësal ko pour que sénégalais xam ne vraiment euh, régime bi mi ngi liggéey mais gouvernement bi itam à travers son premier ministre Ousmane Sonko. Nous avons été et nous avons une volonté vraiment pour mener le Sénégal. C'est vraiment une volonté que nous pour mener le Sénégal. Nous avons 5 points. Point que nous avons dit, en moins de en moins de 100 jours, 120 milliards de subventions de la campagne électorale, 120 milliards de la de subvention de la campagne électorale Tu moins de 100 jours état du Sénégal a gagné 120 milliards yo xamanteni maintenu subventionné li nga xamanteni campagne agricole ci walu semences ci walu engrais mu nek lo xamanteni lu am solo la ñu mobiliser itam armée bi mu am mu def accompagnement bi lolu am solo en moins de 100 jours. 53 milliards pour la baisse des prix. Le gouvernement du Sénégal, en moins de 100 jours, gagné 53 milliards pour baisse des prix. C'est moins de 100 jours. en moins de 100 jours l'État du Sénégal a 41 milliards pour rembourser les dettes que en moins de 100 jours. 43 milliards yo xamanteni état bi pour rembourser agriculteurs et en moins de 100 jours état bi génnee na plus de 224 milliards impactant directement et uniquement le citoyen sénégalais 224 milliards yo xamanteni état bi génnee na lolu da directement ci sénégalais bi façon bu muy que lolu day dem ci ñi nga xamanteni moy différents secteurs yi le secteur public ak le secteur privé 100, milliards. En moins de 100 jours, Mokui, l'État du Sénégal a 10 milliards de dettes de CEMU. CEMU, c'est une couverture maladie universelle. Dette bo xamanteni bor bo état du sénégal amélon nak ñi nga xamanteni ñom ñoy hôpitaux état du sénégal fayna lool mo lool nga xamanteni mom moy 10 milliards yu mu amélon hôpitaux donc li ci moins de 100 jours moom mooy téeméeri fan ci moins de téeméeri fan bi ñu faloo ak léegi diggante ñetti weer def nañ ci lii mbokk yi kon nga xamante ni am nañu politigu defar sunu réew am nañu volonté tabax sunu réew li ñuy war a def moom mooy ñun ñi nga xamante ne chaque sénégalaise chaque sénégalais moom mooy ñu ñaanal ñi nga xamante ni ñoom ñooy le président de la république le premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement yàlla may leen réussite fi ñu jëm parce que bu ñu ko deful ah euh, lii raxam ci ñag bi la jëm te bu ñu leen ñaanalee mën na am li ñu réussir si trois mois yi bu ñu defee six mois jëm at yëf yi dana gën a am solo yëf yi gën a dana gën a baax te loolu rek la ñu soxla ci citoyen sénégalais bu nekk fi may terminer mooy mention spéciale boo xamante ni dañ koy jox ki nga xamante ni moom mooy le ministre des transports Mouy El Malik Ndiaye ci courage politique bi nga xamante pour Djel bus, Dakar dem mettre que à la disposition des Sénégalais pour le transport ci wàllu tabaski bi gannaaw bi nga xamante ni transporteurs yi ak yenn chauffeur yi lank nañu ni du ñu wàññi paas yi jël paas yi yóbbu ko ci niveau boo xamante ni Sénégalais yi tuñ ko woon te ku tabaski boo paree di nga ñibbi waat continuer sa liggéey bi nga xamante ni moom nga doon def ci bërëb ba nga jóge woon kon El Malik Ndiaye wax deug yalla tous nos encouragements courage politique bobu lañu ñu soxla ci kenn ku nek rupture bi nga xamanteni mom lañu la ñu doon woote moom la soxla ci kenn ku nek pour que li fi nekkoon ñu xamanteni ni mais jub jubal ak jubbanti bi nga xamanteni mom lañu wo chaque sénégalais pour mu mën taxaw mu mën nek ñu gëm ni c'est réalisable et mën nañ ko réaliser donc lolu noonu vraiment lañu ñu doon euh, lancer à ce que chaque sénégalais mu jël conscience ci lolu dinañu dellu siwaat incha allah ci yeneen video gën a leeral nguur gi yoon bi nga xamante ni moom la jël pour mën a réduire la souffrance des sénégalais mën itam taxawu sénégalais bu nekk ci secteur éducation santé commerce pêche élevage industrie ba ni nga xamante ni mooy sunu ressource minière ak sunu ressource gazière yi nga xamante ni génn na te ñu war passer vers l'industrialisation lépp loo xamante ni ñu ngi ciy dox ay jéegu war mën a dem ci kanam Les luñ ci war avec MMD Media TV indi ci ay pour que sénégalais ñi xam fi nga Sénégal jëm di partager ak liker surtout ay vidéo Pape MMD Media TV alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.